Aïcha mbok yi ba tey ñu ngi Pikine ah comme ni leen ko waxee woon tey la open press bi ñu dugg ci quelques places xool gars yi nuñ ko waajee nuñ ko préparé na leen ko dundee jàmbaar nuyu naa waaw sant bu wér baax a baax jëwriñ naka tey sant suñu borom baax a baax nan ngeen waajee open press bi am fii Pikine ci Ama waaw ñu ngi koy waajal bu baax a baax kay waaw ak doole rek incha allahu rabi. yaakaar ci combat bu baax a baax a baax ama rek. waaw ci làmb ji ci wàllu bëre wala am moom loolu moom jarut a wax moom. ba ama day bëre day daan incha allahu rabi dara du ko dindi. suuf. jaajëf jaajëf. Aïcha maam Cheikh nuyu naa la. madame maa lay Eh, lan ngeen waje bis bi yéen ci machine de demoo leen ëppoon. non xam naa ci kanam tour rek dañu dem bu neexee yalla inshallah quoi mais nak te ñaan yalla yalla may dem emballé ah, mu daan lo jël bu leer nañ ragal nga ne lol dina yom non si dina yom kay parce que bi gaynde la quoi xam nga te du ragal te man gëm na ni dina duma mo lo te dina ko daan. inshallah inshallah rabbi jaajëf jaajëf. waa soxna si nuyu naa man lay fay. yow fan sa ama waaw. am nga yaakaar ci ama. bañ am yaakaar. am naa ci yaakaar kay. xam nga Modou Lo bu baax. xam naa ko tuuti rek. bu dooroon ëmb seen mu daan. mais kooku du dara. buñ ñëwee dañ koy wàccee. teg loolu dañ koo xam rek. Pikine ragal dëkk fi. jigéenu parcelles yi démb nee naan ma euh, dinañ dugg biir Pikine daan leen sëlëm leen dem ñibbi. loolu la ñuy xaar ba xam dina am. yow bi nga demee sat bañ dem. fa dëgg ne ma massa. open press ba. ci kanam tuuti yàlla. di nga dem. bañ dem. lan wax euh, Ama ak ay supporters violence rek yu ñëw bëre neexal ko ñëppi loolu rek la. jigéenu Pikine ni nga wax leen la. yu ñëw seetaan jigéen Pikine moom du def danger danger amu fi Pikine noo danger la wax. mais mais jigéenu parcelle nag ma wax la nga bàyyi xel ne ak ñoo mën a sañse mais baax na bu ñëwee ñu fekk ñu fi rek parce que ñu dañoo pare. mën ngeen sañse <laughs> loolu dangay laaj wala dangay bëgg a xam. damay laaj. bàyyi ba bis ba. boo ñëwee ñu leeral ko. jaajëf. kontaan mu nuyu naa la. Cape. Cape nuyu naa la. waaye bu daan ma laadum. Paate dig nañ ñu laadum. Ama bu daanee jël bu Mourlo mu ñëw mu mel benn ah, bu góor wala bu jigéen. non bu jigéen laa jox bu jigéen. moo ëpp avantage quoi si yow. moo ëpp moom mais yow euh, tey jii nii Ama Baldé tuddee boppam sël bu ndaw nga nekk yarkatu laadum sël euh, bu ndaw mooy lan. waaw sël bu ndaw nag bu ndaw la nag bu ndaw maanaam mu ko mën ko mën a waxee sa mooy nag bu am ay ay ay deux mois quoi nañu war sël bu ndaw. moom moo amee deux mois la dëgg si làmb ji moo tax yi tuddee ko sël bu ndaw. am na yaakaar dina daan mu. bu baax. Papa Sow jaar Papa jaar moom foofu lay jaar bu ci xeex wala ci bëri. si lépp bu bëree ma dóor ko mu daanu dóor mu daanu ma ko def ah bu taxawee lool loolu la nga koy def. li mu defoon Eumeu Sène daal. bu taxawee moom sax na bañ daw combat bi ngir yàlla na taxaw. lan ngay wax waa parcelle. waa parcelle dina ñëw dina ñëw ni dugg bi tëj stade bi. nekk ñoom si biir pour lamb ji ba yàq jaajëf cappe suñu laadum paate yéen a ko déggandoo nee na bu ama daadee mu jox ma benn laadum ah kon nag gars yi ma jàpp ni dinaa am laadum ndax ñoom am na nañ yaakaar ni ama day daan léegi nag man far dafa mel ne war na mën a commencé feeñ nag ndax nag laadum du ay caaxaan ma leen di fàttali nag yëre bu rafet bii ma sol fii leen ko ñawee zagi moo ko ñaw téer bu mën a ñaw bi du bàyyi du tàyyi mooy loolu africain lan wax nañ leen delluwaat cosaan di sol li ñu moom ñun lii lan moom paate jantal naa ñu dox ayca ñu ngi dëgmal télé bu mag war a ñëw dem grand stade bu supporter number one <laughs> kon gars yi yéen fii mooy essence su bu mag ah waaw nan jaar télé koñ télé bi ah ñu def loolu bu ko defee ñu am fa maximum de information kon ñu ngi essence télé bu mag naru de Niayes tele bu mag mi ni ah, wa ya ala Cheikh ala Cheikh. man affaire lamb ji nag gars yi ñooy wax. jaajëf sama gay yaa ngi ko waa Mate Seng jàmbaar nuyu naa la. wa ah, la jam la jam ah, dem fële. ah ñu dem ay ta ñu dem. ay wa ñu dem mafia bi ah. comment ama ama ko dur mu daanu. lolu yom na de. wa yow iya, ama moko man moko lose moko la moo ko da koy dóor mu daanu. ah mom dafa dafa yomb trop nak wax deug yalla troisième fois Tyson indi ko Eumeu Sène indi ko amana ko indi nem somna yalla jajeuf inshallah jajeuf jajeuf jaajëf. jaajëf. ayca ñooñu Mar Zeng ma dem ci mafia bi wa tatouage bi ayca ngeen ne. barki

doomu Pikine yëpp ay jóg soutenir ko ndax Ama booy bu am jom la am ful la. ndel bi day leeral yoon bi ndel bi day leeral yoon bi. waaw comme loolu waaw noonu la demee gàpp kaay li mu wax nee nañ ndel bi waaw bàcc waxal. jël ma jël ma. waaye nan nga gisee combat Ama Modou Lo. waaw Ama Modou Lo lu ma lu ma ko gisee. bëre bi na ñëw ci njëkk ak teraanga na dëggal boppam ci maanaam ci digg ci digg làmb ji ñu daan ko daan bu amul fenn Modou Lo du dërëm Modou Lo barki Serigne Touba Mbacké. waaw mais yéen a ngi bàyyi xel li daroon euh, ki nga xam ne mooy euh, Eumeu Sène ci ak Modou Lo yéen a ngi bàyyi loolu xel. sant yàlla rek parce que Ama ñun wóolul nañ ko te entraîné na te dafa jël taamam parce que Ama du ñooñu yaa ngi dégg Ama nit la koo xamante ne moom ci làmb la dund te xaalisu làmb lañ ko ngéntee te dafay respecté adversaire am te moom lu ko yàlla may loolu la koy jëli ji. parce que lii yàlla koo may ku toog cinq ans bëre woo xam nga fi nga jëm te xam nga li la xaar say ginnaaw waaw gis nga te waa Pikine ñu ngi ci ginnaawam te ñëpp a ngi ci ginnaaw nelawuñu eh, mais mais mais mais yéen lan moo tax demoo leen open press non ñun Pikine la ñuy dund mais tamit dañoo nekk ay ndaw di ay liggéey comprendre nga ama loo leen di liggéey fii tatouage la ñuy liggéey dañuy pose comprendre nga gisuñu client gisuñu dërëm gis nga ñoo ngi nii toog Nek ay jeune nek ay ndaw toll si daan doole comprendre nga mais wul tamit ama kese la ñuy topp te luñ ko bëggé dañ ko xawon bisu làmb ja ay ëppoon presse yi ni yépp essaré no nek si ut xaalis bi da ser dañuy ut deureum ba jotti dogo dem essat mais ay ëppoon mën nañ ko xaw may comprendre nga. mais am nga yakar ci mom ndam kese dégo mo de. say. par force par force dañuy daan du kese ne yaakaar ré li daloon ama seen yéen ngoy baye xé bàyyi xel. ñun amadou du Eumeu Sène du Ama Modou Lo buñ ko jaabee bis ba moom dina xam ne lépp dëgg la dina xam ne xale bu ndaw lañ cinq ans lañ toog bëréewuñu cinq ans lañ toog bëréewuñu dañuy daan par force victoire kese amul leneen yeneen ci soor lu mel ni violence non du am violence du am dara Pikine dépassé na violence dañ koy bàyyi normal mu dugg si normal bëre si parcelle Pikine na leen ëpp ay beau gosse ah Pikine na leen dàqa sañse Pikine na leen ëppale lépp bu fekkee yar ak teggin fii la buujoo fii lañ bu dee violence tamit fii lañ koy defaree ñoom bu ñu ñëwee yaru fekk fi lu ñu ñëw rek fekk ko fi voilà waa parcelle waa parcelle waa parcelle jour combat ba ah bu ñu nelaw bu yaboo nañ teel a ñëw bu ndax bu ñu teelu ñëw du ñu dugg bu ñu teelu ñëw du ñu dugg. solu rafet ñëw Pikine ñu dalal leen ci biir stade bi comme raana nga ñu ñoo aye ñoo leen di dalal tegal leen ba jox leen añ ba suur ñu dal. ndeli ndeli ndeli ndeli ay ndel léegi léegi léegi lan lan mooy ndeli ndeli yéen a ngi koy wax sànq ba tey. moom. ama borom mooy. ndel mooy borom ndel bi. Ah, ndel bi mooy leeral xam nga boo toogee cinq ans bëre woo. na ay sa gars yi ñu dem ñoo ko gisandoo fondang